victoire euh, bi bañ egg ci lan waaw euh, bokk Pastef dafa demoon ba nekk crime mais ñun dañu dañu nekkoon ci yoonu dëgg yoonu dëgg bi mooy dañu doon xeex injustice bi nga xam ne moom la nguur gi fi jógee tegoon ci askanu Sénégal. Mhm. te depuis 1960 musuñu xam loolu. ah ñu bëgg ñu ñu bëgg ñu ko dundaloo. ah ñun askanu Sénégal ñu taxaw ñu ne loolu du fi amee bon looloo taxoon tey man Ndeyewa Diop ma wàcc tey en tant que yaay en tant que bàjjen en tant que maam. Mhm. ma wàcc tey ci ma wàcc ci gox euh, ci tali bi wane sama mécontentement ànd aussi ak président Ousmane Sonko. parce que dafa nekk koo xamante ni kii ñun mën nañ ne injustice bi ñu ko teg musuñu ko teg benn doomu aadama mhm. waxuma la Sénégal mais Afrique bi ñu nekk sax musuñoo gis ku dund tey li président Ousmane Sonko dundoon ci jamono yooyu ah yow sa engagement ça vous onze mois de liberté mu doon loo xam ne lu doy war la lan lañu jàpp woon exactement ban motif lañ la collé woon waaw man dama dama nekk Malika nekk responsable comme ni nga ko waxee ci département bi euh, comme bi ñuy wax ëttu magi a mm-hmm. yàlla dogal am ay xale yoo xam ne weeru koor dañ leen a fekk ñu toog ci benn atelier tailleur ñuy waxtaan pour xaar heure ndogu jot ñu jàpp leen mën naa leen a mooy ñu ñuy accusé woon cocktail Molotov bi ku ci mel ne ñoom Fofana ñoom Omar bi tey de suite bari nañ parce que ay dizaines de personnes lañ. Mm-hmm. ñu fekk leen fi ñu toog fa leen police ñëw teg yoo teg loxo muy surité urbaine. Mm-hmm. Euh, accusé leen ne dañoo dañuy fabriquer ay cocktail Molotov ah fekk na man booba sax xëy na yaram bi neexul woon ndax mois de Ramadan la woon. Mm-hmm. bi ma ko déggee juste après trois jours de euh, ci bi korité bi passé ñetteelu fanu korité bi ci laa dem ma renseigné wu ah mënuma am accès ci ñoom parce que booba ñu ngi leen di fitnaal di leen teg loo xamante ni lii doo defe naa ne yaakaaroon naa ne tey ci Sénégal doomu aadama du ko teg moroomu doomu aadama. fitnaal mooy lan dañ leen doon torturer. man bi ma demee dama sillonné commissariat yëpp mm-hmm. gisuma leen ndekete boobu ñoom ñu ngi ñu ngi ñu ngi brigade de recherche. Mm-hmm. mooy fi ñu naan sécurité urbaine mm-hmm. aussi. ah ba ma ñëw fekk leen tribunal troisième jour bi ma ñëw fekk leen tribunal. ma fekk leen ci anam boo xam ne du anam bu ma neex parce que anam la boo xam ne ma gis ay waaye ay góor yàlla yoo xamante ne ñii dañoo sonn frustré wu stressé wu jaaxle seeni bët lëndëm mhm. ndax amuñu woon seeni parents amuñu woon accès ci ñoom pour nga jox leen lekk sax tout à fait problème la woon dañ leen a jàpp sans dañ leen jàpp sans téye seen seen lépp xañ leen seen lépp mhm. ah yàlla dogal nag bi ma ñëwee foofu aussi man tamit jalgatewu ma yoon parce que jaarale naa fi ma ko war a jaarale ndax amoon nañu ay avocat bi ma dajee kenn ci avocat yi muy maître Clédor lii bi nga xam ne jàmbaaru fàq tëdd la ñu koy jaajëfal di ñaan yàlla yàlla gën a ñoddi ay fanam ndax am na njëriñ ci réew mi joué na voilà bi ma dajee moom mu dem demandeel ma ci pénitence yi ma dem gis leen bi ma leen gisee ma ne leen lan ngeen soxla ñu ngi tilim munoo leen a sax jege mm-hmm. ndax yëre yi ñu sol ku toog pendant presque dix jours dous jours laaloo ndox. lekk bi demeewul noonu sa lekk bu ñëwee sax lekk bi du am accès ci yow du egsi. Mhm. ma dem utal leen lu ñu lekk premier jour bi ma def ko muy euh, mardi mercredi ma def ko jeudi vendredi lañ ma jàpp. ay boori 16 heures yooyu parce que dama ñëw jox leen lekk ba pare may génn. Ah. ci lañ ma wax ne euh, vraiment que police bi ñu may topp. ci li ma liir ñu ne dañ la tuumaal ne yaa doon financé xale yi fu ñu defal cocktail cocktail yi. waaw loolu laa dégg man loolu laa dégg aussi ci média yi. Mhm. loolu laa dégg te bi ma koy dégg sax booba presque egg naa egg naa déjà kaso ba ci laa dégg ci benn télé. mu ñu def revue de presse ñu ne man maa financé 4 million pour xale yi pour ñu pour ñu pour ñu. pour ñu defal cocktail molotov yi. ma yaakaar ne dégg ci jamono jooju Antoine Diome mooy da ngeen am benn nom de code cocktail Molotov yi café Touba ngeen ngeen ko tuddee woon waaw loolu Antoine Diome ci ay waxam la mhm. ndax bu nekkee kilifa kilifa boo xam ne waxul dëgg dañuy ñeme taxaw tey ne ko waxul dëgg te yàgg nañoo taxaw ne ko musul wax dëgg parce que tey moom Antoine Diome dem na ba assemblée nationale. Mhm. muy codé ay waxam. te xam naa ne loolu maa ko moom parce que def ni dafa am sax mag moo xam ne jigéen boo xam ne mag la mu ngi moom moo doon pousser xale yi di leen financer pour ñu dem defar ay cocktail Molotov pour taal réew mi. Mhm. defe naa ne tey ñun bu ñu doon taal réew mi tey bu président Diomaye yéegee dinañ am problème pour toog ci réew mi. Mhm. ñun Pastef musuñoo taal réew. mosuñoo taal koñ musuñoo taal mbedd musuñoo def dara kon nag dañoo demoon ba nga xamante ne inter pour nga wax sax problème la. sa relation ak xale yi weesuwul woon toppatoo leen xool ci luñ nekk wàññi seen ay jafe-jafe foofu la yamoon. non sama relation ak xale yi ay xale lañ ñoo xamante ni du ma ne ay xale ndax ñoom ñëpp ay borom kër lañu. Mhm. xëy na samay doom lañ man sañ naa taxaw ne ay xale lañ mais kenn ku ci nekk ci ñoom per de famille nga. Mhm. tey jii bi ñu leen di jàpp fekk na man yàgg naa di ànd ak ñoom parce que dañ doon daje ci ay réunion di daje souvent bu bu manifestation daan am ñuy génn comme ñu ne tey sénégalais yi nañu daje place de obélisques bi nga xam ne fa lañ tàmm di daje. Mhm. pour euh, délivrer suñu message yu mécontentement dama doon ànd ak. ñoom et il n'a jamais été question de faire des cocktails molotov. non jamais. Mhm. ñun déjà boo ñu tegalee cocktail molotov xamuñu lan la. Mhm. parce que comme ni ma la ko waxee ñun tey bu ñu taxawee ne dañuy dañoo soxla réew mi taxaw di xeex injustice di xeex xeex loo xam ne àqu nit àqu doomu aadama la ak yelleefam defe naa ne kooku dem di taal réew mi. ndax taar réew dafa nekk loo xamante ne lii vraiment kàddu bu ñaaw la te kàddu googu ci ñoom ci seen gémmiñ la doon génn néa mooy Antoine Diome fu mu mës a taxaw discours am loolu lay wax yaa ngi naan xale yi bi ñu leen jàppee euh, anam bu doy war nga leen fekkee mhm. yow ñu jàpp la teg la loxo fukki weer ak benn mhm. noo ko dundee dizaine de jours ñu ngi sol benn yére bi mhm. mu nekk loo xam ne doomu aadama boo ko jàppee dafa am loo xam ne yaa ko moom yow mi di porteur uniforme bi yaa ko moom mais am na loo xam ne doomu aadama bi moo ko moomal boppam mhm. ndax am na droit sangu bien sûr jullit la am na droit julli aw am na droit changer ay yére mais loolu yëpp amu fa woon dañoo mel na ñu jàpp ay xaj wala ñu jàpp ay xar rek dugal leen na amuñu benn toppatoo ci ñoom amuñu benn kii amuñu. ça veut dire loolu xam naa da nga ko doon dénoncé bi nga bi nga njëkkee génn. non dénoncé wu ma benn menace la. non non non dénoncé wu ma parce que man bi ma ñëwee dama ñëw ak calme. Mhm. xam ne lii nekk na loo xam li ñu leen di jiiñ defuñu ko. Mhm. donc amoon naa certitude ko ne xale yi fii ñu nekk dinañ ci génn incha allah. fu la jàppee ci buntu commissariat wala sa kër wala feneen ci biir tribunal bi lañ ma jàppee. Ah. li nga xam ne dèjà yoon da koo tere. Mhm. ndax dañ naan ku daw sax boo làqoo ci biir ci police war nañ laa protéger. Mhm. forte raison tribunal bi nga xam ne fa la ñuy àttee askanu Sénégal man ci biir tribunal bi lañ ma jàppee. fa lañ la fekk jël la yóbbu. fa lañ ma fekk parce que dama génn ci hall bi. ma gis ñu topp ma plus loo xam ne mat na cinquante personnes pour benn jëmma ji taxaw ah bi ma génnee di dox ndànk ñëw ba fi nga xam ne fa la fa la gendarme yi nekk foofu la ma xale bu benn xale bu góor dóoree mbagam ci ñoom la bokk ci ñoom la bokk parce que dañu civilé woon hmm. bi ma bi ma dooree mbagam ma def repris ma taxaw ma xool ko mu sëgg ci samay nopp téye sama saak ak sama téléphone man ne ko no bàyyi sama saak mu waaw mu ne ma mu ne ma ma ne ko ana seen carte comme c'est la police. et mhm, vous êtes en civil. ana seen carte mu ne nii génnee carte bi woon na ko man ne ko am sa oto parce que tiituma rafuma. Mhm. parce que xam naa ne sagam tey président Ousmane Sonko la ñu mën a jàpp tey teg ko injustice bi ñu ko teg. lor njabootam lor ay soxnaam lor askanu ay Sénégal rey ci euh, rey ci loo xamante ne lii ñu ngi naan ay 86 xale. Mhm. kon nag man awma lu may tiit wala lu may ragal. ndax xëy na la ma dund ñoo ñu dee dunduñu ko. Mhm. xëy na la ma dund sama njaboot gii ñu jàppoon tey du jàpp dugal leen ci biir kaso dundaguñ ko. dama def ndànk ñu dugaluñ ma nag ci benn auto police. Ah. bu am plaque police ci benn taxi boo xam ne taxi bi mu ci duggee dama amoon problème mu noyyi. Hmm. taxsi boo xam ne mun naa ne gaare na ay année ci lañ ma dugal taxi bi bi ñu ñëwee ba ci rond ñaay cokkeer bi da doon paan te paan boobu mu doon paan xëy na. bu ko yeneen euh, xale yi Pastef yi yëgoon. Mhm. munoon na munoon na fa indi beneen problème ba am. te koo ni tam dina arrestation sax teguñu ko ci yoon en fait. ko ci yoon. nii lañ ma jàppee pamti pamte ma yóbbu sûreté urbaine. Mhm. bi ma demee ñu commencé di ma laaj ma ne leen du ma leen tontu déjà biñ ma jàppee chef seen supérieur bi mu taxawee xamul sama tur. Mhm. xamul sax kan la jàpp xamul sama tur parce que ngi doon peut-être mi ngi doon laam-laami kii ma jàpp est-ce que moom laa doon wër est moom laa soxla. bi ma nee Awa Diop ma ne ko man tudduma Awa Diop. te du ma awa jóob bu dee awa jóob ngay wër bàyyi ma mën ma ñibbi. Mhm, mhm, mhm. mu ne ma toogal fa laa nekk ba ñu woo avocat yi mett saw ñëw assisté ma ma koy nuyu de passage ak maître bi ma ñëwee laajuñu ma dara lu dul ça fait euh, ça plus de six mois ñu ngi lay topp. en fait depuis depuis bi président Ousmane ko ñëwee ci département Kër Massar xam naa ne. depuis boobu la ñu commencé di am ay cible ci lañ ma toppee. alors <laughs> man it. waxuma leen dara wax nañ la wax nañ la luñ ma dara waxuñu ma dara fa lañ ma teg ba comme lekkuma woon je suis diabétique ba ay mm. presque 22 heures ma commencé am malaise. c'est bien sûr bi ma amee malaise léegi ñu ne ma dañuy woo Maître Sow Maître Sow ne leen en tout cas yéen ko jàpp mag la. am na plus de cinquante et quelques années mm-hmm. ngeen jàpp ko yaayu jàmbur ngeen jàpp jabaru jàmbur ngeen jàpp kon nag mi ngi nii ci seen loxo lu ko dal rek xam leen ne mu ngi ci seen responsabilité mm-hmm. ah la ñu yóbbu ma hôpital yóbbuñ ma hôpital fa lañ ma tëyee presque ba ay une du matin ba ay une heure du matin lañ may soog a yóbbu hôpital principal mhm. mi ngi tombé woon ak booba problème bi amoon fii ci Ngor hôpital bi mi ngi amoon ay ñu ngi feesoon de la ay blessé mhm. alors euh, dañu ñëw di ma seet euh, bi médecin bi ñëwee di ma xool ñu ñu ñu xëccoo ak médecin yi parce que dañ ni ñoom dañuy taxaw fiñ may seeti médecin bi ne leen fii hôpital la damay mhm. liggéey sama liggéey dangeen di xaar ci bitti ba ma pare parce que dama koy summi consulter ko mhm. ci la ñu soog a génn mu ne leen mais kii mag la xam ngeen ni fii amul fenn fu muy jaar mhm. donc amoo leen droit taxaw ñu koy consulter ci seen kanam xaar leen ci bitti ci la ñu xaar ci biti ba ma pare ñu jël ma yóbbuwaat ma ak ordonnance bi ma bindat xam nañ ne diabétique laa damay jël samay garab tous les jours sama ordonnance non seulement ñoo ma tëye mais jënduñu ko ba fi may waxee jëluñu la en charge jëluñu ma en charge. mois yi nga feebar nekk mag am jabet foo ko passé pavillon spécial wala dañ la yóbbu prison. non non non man dañ ma yóbbu prison directement. Hmm? man aw ma sax retour de parke parce que dama tombe woon ak benn euh, longu weekend hmm. ñu ma jàppee finalement dañ ma yóbbu euh, police plateau bi ma yóbbee police plateau fa laa nekk ak longu weekend bi amoon lundi ba férié la woon. Hmm. Ah, mardi ba lañ ma def mandat de dépôt mandat de dépôt boo xam ne motul sax aw ma sax deux minutes ak euh, juge bi. Ah, parce que dañ may dañ may yéegal ñu ma yéegalee mu ne ma yaay ndeyewa Diop ma ne ko waaw sama avocat yaa ngi taxaw avocat Pastef yaa ngi taxaw mu ne ma xam nga liñ la jàppe ma ne ko yaa ma jàpp wax ma li ma jàppe mhm. mu ne ma dañ ni dangay ngay organiser ay kii ay manifestation non autorisée ba pare yow da nga financer cocktail Molotov xaalis bu bari te dañ ni def na ma dañ ma accuser sax ne ma diaspora bi dafa am ñu nekk ci diaspora bi ñu lay jàppale. ñu lay jox xaalis te état wanewuñu benn preuve. wanewuñu dara dara déjà man biñ ma bi ma demee sax enquête sama téléphone kenn ki laa ci envoyé li ma ko envoyé dix huit mille francs la te kooku da doon jaay ay ginaar ci weeru koor boobu. maa ngi tëdd hôpitalu Kër Massar xaalis boobu pour ginaar la woon. pour ginaar la woon bi ñu calculer xam ne li ma leen wax ak xaalis boobu. amul am ni amul plus amul moins dix-huit mille francs te mm-hmm. loolu ay ginaar la laa ko jënd amatuñu leneen luñ may wax